dafa ñaaw lool bi ñu seetaanee. Mm. président Macky sàll toog ci télévision bi. sa collègue Cheikh Yérim Seck. Mm-hmm. posé ko question bi laaj ko ndax lii nga xam ne moom moo ko doon jooy 2012 lii ñuy jooy tey. Mm-hmm. ne ko ba nga ca tolloo 2012 ne woon bëgguloo Ousmane Ngom organiser élection yi ndax ci Abdoulaye Wade la bokk PDS la bokk. Mm-hmm. daf ko weddi déjà mu gàkkal d'abord. deru institution tey bi mu occupé ba pare tey fii réew mi tollu ñëpp taxaw ne ko bëgguñu nga organise Aly Ngouille Ndiaye le ministre de l'intérieur organiser suñu ay élection te ñi koy kaas bu nekkoon les sénégalais de daa garaawul bu newoon le simples militants garaawul mais c'est les candidats ñoo koy kaas. candidats yi nga xam ne ñoom lañ validé ñoom ñoo bëggul euh, Aly mi nga ministre de l'intérieur. nek mm. en même temps le maire de le maire de le maire de Linguère organisé li nga xam ne élection présidentielle mm-hmm. bu ngeen di jàpp da ngeen a ni day am wala lenen day am. balaa ma la ci expliquer sax balaa ma la ci defal démonstration. Mm-hmm. ci lii nga xamante ni. Mm-hmm. lu xewoon la ba pare dama lay wax la danga may may ma yeggali. ndax Macky Sall def na woon Ousmane Ngom du organiser ay élection yoo xam ne moom daf cay Abdoulaye Wade c'est un homme démocrate. mu d'accord. ci point bobu ndax opposition bi ko doon bañ 2012. dem jëli Benen kilifa Bo xamanteni ni nañu ne farul fenn. dénk ko organisation des élections. tay ñu laaj ko Macky Sall mu bañ. te Aly Ngouille Ndiaye mi suñu xel dafa tout à fait normal mu teey ci mom ndax Aly Ngouille Ndiaye c'est pas la première fois. ñu ngay tudd tey ci lo xamanteni du lu set wala du lu rafet ndax bul arcelor ArcelorMittal tudd nañ ko ci bu Africa Energy tudd nañ ko ci bu fàtte ne Petrotim tudd nañ ko ci te tudd yañ ko ci tudd yëpp ken bëggul kum doonon doonoon yow ko la ci tudd te loola dara setu ci ba fi ñuy waxe te 2014 mu nek ministre des mines mm-hmm. ñu dem ak mom élection municipale Linguère mm-hmm. ñu defar ñu defal liste yi tey ngay gis hmm. boo xoolee tey liste bii nga xamante ni tey moo nekkoon élection départementale 2014 29 juin 2014. Hmm. département bu Linguère tey ji bulletin de vote bulletin de vote bi amul liste majoritaire proportionnelle dong moo ci nekk. Hmm. te ñaar yëpp lañ boole woon déposé. rax ci dolli jël bulletin bi. déggoo liggéey jolof nga xam ne jiboo laytika yal na ko yàlla yërëm ci la bokkoon mm. le ministre d'état Habib si ak honorable deputé Aliou Dia mm-hmm. ñu bokkoon list bi mm-hmm. wëree ko jolof yëpp mm-hmm. ne dañuy dem élection présidentielle ba ñu demee ba ci jouru vote ba à notre grande surprise bi ñu duggee ci biir bureau de vote dañu fekk ñu changé couleur bulletin bi mm. bii nekk départemental mais commune bi ak bi yëpp nekk benn waroon a nuroo ñu changé ko bi ñu duggee ci bureau yi bulletin bii lañ fa fekkoon bulletin bii ñu changé couleur bi xam ngeen ne boobu ak bii nuroowul yëkkatil boobu ak léegi nag ku mën a jëf-jëf jii nag yow suñ la dénkee suñu ay élection présidentielle ba pare nga nekk maire lu ñu dal ñoo ko teg suñ bopp